face écrit Pape Mbaye Pape Dame ñuul li am lu rouge li Sa Cadior numéro 2 moo ngeem moo ngeem lu bu na kala bala sa la delloo ziar bu baax a baax. indi tey sa poulain muy Boy waa gis nga ko waaj nañ ko niñ ko war a waajee macha allah vraiment instant moom lépp lu ñu waroon def ci moom def nañ ko fu mu toll nii yàlla rek la ñuy xaar mu may ñu ndam lu set wicc moom fu mu toll nii combat nañ ko liñ ko war a yëpp incha allah dina respecté combat bi bëre ko ci yoon lu yàlla jox rek ñu yóbbu ko kër gi incha allah. parce que ñaari ndam daa lay dugg ci biir géew bi waaye benn génn mais damay ñaan yàlla nag yàlla farak man ma génn. mais ani Boy Lo. waaw Boy bi nii. waa gis nga mos euh, dëppoo mbaxana bi noonu ànd ak sama rakk Pape Diouf vraiment ànd ak euh, benn doomu ndeyam boo xamante ni mooy Ibrahima ñu waaj ko niñ ko war a waajee yëpp di wax ne Fatim làmb ubbeeti na niñ ko ubbee si saison bi si jàmm yàlla nañ ko tëjee noonu si jàmm ak salaam kenn bañ cee am rëq-rëq ñi feebaroon ñëpp yàlla wëral leen ñi nga xamante ni comme ñoom Pape Dia ñi nga xam ne dañoo wàññeeku yàlla xare leen àjjana ak képp ku mu fa fekk ak ku ko fay waaj a mais Fatim yow dama lay sant di la gërëm bu baax di la wax ne fàtte nag ne Maya Ndeb ak baabu Ngom maa leen jëkk indi fi ci lutte avec frappe stadium Iba Mar Diop donc bu ñu gisaatee séeréer yi tey dinañ xam ne dañoo delloo battu rek ca ndaala waaw. kontaan ñëpp kontaan nañu parce que gis nga tey journée tey bi ni mu réussir journée bi tey ouverture bi ouverture bu am solo la te yaakaar naa dañu ñaan rek yàlla. lamb yëpp mel na lamb tey bi na lamb tey ji muy sixième édition drapeau saf noonu na fi Fallou Fall sa sama jigéen la li ñu boole kóllëre kóllëre moo ñu boole bokk njaboot njabootu lamb mooy njabootam njabootu lamb mooy sama njaboot loolu moo tax suñu diggante nekk kóllëre mais ñu lay jaale Pape Dia Pape ja ñu ngi koy man man tamit maa ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale Bombardier di ko jaale monde lamb yëpp di wax ne yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem ñun ñi fi des tamit yàlla nañu yàlla saxal ci tuub ak jaamu yàlla ak liggéey. sëñ Modou kon. bég bu baax a baax a baax bég naa bu baax. Eh, sunu xarit sunu frère Bombardier di ko jaale képp kuy takk ngemb ndax Pape Dia ñëpp xam na ni nit ku baax la am yar am teggin. rafet xol mana conseil nit mën wax ci nit lu baax lu ndara ñaaw sax da kay wax mu rafet man ak rakam bëri nañu ñaar yoon mais bo nu fekke ñu tok da nga yaakaar man la gëna tuba bëgg sax ak rakam kon ñu ngi koy ñaanal yalla suufu tuba ba mu ne yalla Serigne tuba wala rasulullah wala ko suñu borom wala ko ci barke Serigne tuba mais champion bi nga xoolee sànq Baboy ñëpp ni Baboy numéro 1 ma nga ne nga sok di xol lo yak waaw sama yaram dafa dafa yëngu parce que nit bu démé bëgg la ba nduru la ci lepp yàlla sutural ko tamit muy góorgóorlu ba am grand combat kon dama war a ñëw taxawu ko ànd ak moom gunge ko ndaxte xale bi am na yar am na teggin bëgg na nit fonk na nit nangu na yónnante gore na te taaliba Serigne Touba la kon mënu dara xaw dara yàlla rek a man ñu ngi koy ñaana yàlla na ko yàlla may ndam ci bark Serigne Touba waaw ñu ngi koy ñaanal baax merci ma sœur merci. jërëjëf. yàlla sunu borom boole ñu nungul ñun ñëpp. fi may njëkkeeg yow mooy jaalale ki nga xam ne ni moom mooy Pape Dia waaw jërëjëf euh, maa ngi nii Mbour laa jóge léegi di ko jaale famille làmb yëpp di ko jaale Bombardier bi nga xam ne rakkama di ko jaale yaayam ak papaam ndax kere bi may indi Bombardier Ndakaaru booba Pape Dia ñu ngi ko fekk ci kaw machine am muy ñaw ma jël Bombardier indi ko fii jox ko Gaston Mbengue Euh, Gaston jox ko Baye Yéri keroog lañ ko tuddee Bombardier parce que amutoon écurie bu ñu ko mën a askanale ndax bokku fi woon te xamuñu ko woon bés boobu euh, Bombardier bëre na ak Manga 3 bëre ak Alaaji Nger ba daan Alioune Seye ñu door a xam Pape Dia mu nekkan xale bu yaru nekkan xale boo xam ni bii musul yàq làmb ci bés yi nga xam ne rakam am na ko muy bés yu mag mag ci làmb daf koy rafetal bu daanoo day rafetal bu daanee day fay rafetal yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jaale famille làmb yëpp di ko jaale aussi waa Mbour di ci jiital euh, mboolem sportif yi nga xam ne ñoo nekk ci Petite Côte rawatina nag ministre sport ak les membres du CNC yi. Euh, jërëjëf tonto Khadim tey nag di première journée sëñ Modou Niang nga gis ne stade bi mel lan nga ci. waaw kontaan rek di ndokkeel Serigne Modou di ko féliciter ndax tey bari na ay champion yoo xam ne Serigne Modou moo leen promouvoir. Euh, Serigne Modou di promoteur boo xamni premier combat ma organisé en 1985 fi ci stade bi digënté Pape Faye ak Simel bobu ak légui Serigne Modou rafetal nako ko ba musutu am non ci promoteur yi musul am non ci mbër musul am non ci menacé yi euh tamna aussi di ubi saison bi té gis nañ né sa su ko ubbee am butu lay ubbee am butu fermé yalla nako yalla suñu borom fay di ndokkeel promoteur yépp mais ma dégg ni am la looy waaj nag lu rëy. waaw euh, waaw euh, créé naa benn structure buy tëgg lamb bu ñuy wax Ndiar Ndem production. Ndiar production. ñu war a jëkk a muy feet bu mag koo xam ni bii dama ci bëgg a sant sama borom delloo ci njukkal yàlla ak famille lamb ndax maa ngi jël suma retraite.

oh ngi door oh Petit Lo Petit Lo Père Mingom Petit Lo Père farloowuñu waaye caatu yëmbal baara moo ñu woon ginnaaw moo nekk écrit bàcc seras caatu yëmbal écrit yëmbal mbooloo oh là am nañu différence de poids caatu yëmbal ak baara quatrième combat de la ndeysaan fii ci stadium Iba Mar Diop waaw waaw doole yemul doole yemul oh la la oh caatu yëmbal daan caatu yëmbal daan di jul ci di sant samay ñaari waajur di sant sama waa koñ bu baax a baax di sant sama waa écrit bàyyiwuma ci kenn surtout kii lu mu sonn ci combat bi wax dëgg neex yàlla moom mun naa wax ne moom kenn sonn ko ci billaay di sant tamit sama meeru koñ yëpp di sant tamit waa mafia teg cin bi sama koñ buun tournalu buun waa saret bi gars yëpp maa ngi leen di sant bàyyiwuma ci kenn caaro yi surtout waa caaro nag sonn nañ ci combat bi billaay wallaahi wa kitaab songoon nañu waaye dañoo oh là là doon na ko wéele internet bañ na kaw dana am kaw dana am kaw dana am oh là là Baye internet dana ko door mu daanu internet a ngi fayu de ah xale bi jàmbaar la oh dana ko dóor mu daanu daf ko prolonge Pape Dame inter internet faqat pay dam ma ngi koy fàqat e ñi ngi bëre internet jàmbaar la ah internet jàmbaar la ah e waay e waay ndeysaan internet pa billaay yàlla la ko taxa wax ndeysaan te muy dëgg nag ndeysaan Pape Dambay internet bu Fass Benno oh là daan na ko daan na ko Pape Dambay bu ko dóor eh boo ko dóoree am problème de. deuxième combat de la soirée ñagas ak vita <laughs> combat bu nara gaw gaaw ñagas ak vita vita mo nge nge mu lu weex ñagas mo nge mu lu <laughs> bula tetu bopp mom moom ñagas ñagas ak vita ñagas a ah, ñagas dañ la door nga daanu li ngay def moy lan ah way déedéet way ñagas ak vita ñagas tak nako ñagas takk lu koy def da koy daan daan na ñagas daan na Vita ñagas daan na Vita jël ngay seere la Siteu bu Kër Mbay Faal Buur Siin ta ay capitaine maa ngi lay ziar Fatim yang ngi si jam alhamdulilah. may wax rek ñu lay dalal jam waaw comme promoteur bu nga di ñew a ah, ñoo ngi lay dalal jàmm bëggoon xam nak journée bi nga tegg ak mbër yi nga xam ni mom nga tëgg. waaw ngi euh, ak Gourdin ak ak euh, Ronaldinho bu le 12 janvier. Euh, arène nationale bi incha allah si kàttanu yàlla suñu borom. pour euh, le janvier arène nationale. waaw wax nga dëgg parce que Modou Bey xam nga le ministre des sports nee na le 31 décembre. ci ñuy tëj stade bi la dëgg la loolu mais xam nga tey dañ ñu faussé quoi ñu jël date ba pare ba suñu ginnaaw ñu yóbbu ñu arène nationale ba après suñu ginnaaw ñu déggaat ni prolongé nañu journée yi bon.

iroga de ma te yongo na fi ziar naa la ñu ngi lay delloo ziar buur di la jaajëfal bu baax di kontaan sa teewaay tey nag euh, yàlla dimbali ñu ñu ñëwaat fii euh, concernant bis bi nga xam ne sëñ Modou ñaaw tuddee na ko di ko faral di def at mu ne sa ànd ak sëñ Modou sama ànd ak sëñ Modou moom dañ ciy sant yàlla bu baax rek di naan macha allah wax dëgg yàlla maa moom li ñu boole kóllëre la teraanga la te sëñ bi dañoo boole ñun ñaar muy ànd bu sincère nga xam ne du mbiru xaalis du mbiru am-am du mbiru jamono wax dëgg yàlla sëñ bi daal moo ñu boole maag moom muy ànd bu dëggu ànd bu sincère may am ci moom mbégte di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal li muy jëf nii yàlla na ci yàgg suñu drapeau bi tamit yàlla nañ dem ba suñu sëtaati sët di ko di ko yore di ko organiser. gis ni moom at mu ne rek mu jox la ko. te te sax daanaka du la tàggu. waaw xam nga nag li ci biir a biir ñun ñaar ñoo ko xam. moom xam na man xam naa moo tax xëy na mu may ibbee at bu ne. waaw loolu li ci biir ñun ñaar la daal waaw. daal soxna daal bég na daal ci bés bi daal. waaw bés bi euh, am naa ci mbégte lool munu ma ndatt sax mbégte bi ma ci am ndax kuy ibbee làmb ibbi saison. jël la ibbee la yow ngay soxna di wëllëreem loolu rek fi mu ne teral na jigéenu si àddina bi yëpp loolu dafa def lu rafet macha allah muy loo xam ne dama ci am mbégte lool moo tax saa su ne dañ koy waaj di ko préparer di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may maa moom ak ñeneen ak ñeneen ak àddina bi yëpp ñu yàgg di ko waaj yàgg di ko fekkee ci kàttanu yàlla ñu ngi koy. ne sëñ Modou Niang ndeysaan ngi noon di wax ak ñaari mbëri sixième édition drapeau soxna na fi Fallou Fall BMW ndeysaan ak Baboy Baboy numéro 2 bu xam sa cosaan moo ngem moo ngem lu weex moo féete suñu ndeyjoor bu Badajon ah BMW tey lan lañ ko wax bu arbitre sifflé woon rek day dox ci sa kaw a xeex bu méttee méttee méttee métti arbitre sifflé waat na Baboy BMW BMW door na léegi Baboy juyoon ak moom Baboy juyoon ak moom BMW Baboy oh là là BMW ngi dóor waaw sama góor ndeysaan Pape MW daan na Baboy BMW daan na Baboy